waaw bi noonu arrestation yi mi ngi euh, continuer kii ñu mujjee jàpp moom dafa mere loolu sénégalais yi di wax ne euh, président Macky Sall bu ko neexee mu yokk courant bi euh, yokk ndox bi yokk lu ko neex bu ko neexee sax mu def lu ko neex ak sénégalais yi ndaxte sénégalais yi ñoom jàpp nañu ne du ñu ay nit yu xeex waaye ay nit leen yoo xam ne looloon teg rek ñu nangu ko moom nag mu merci ba futu looloo waraloon sax euh, mu yëkki ay kàddu ci kanamu presse bi di wax ne comme demee na nii sénégalais du ñuy xeex euh, lu leen teg rek war nañ ko mën a nangu di wax kon président Macky Sall war na mën a teg lu ko neex askan bi même nan la ko jàppee euh, ba tey ñu leen di toppal fii lii xew fii nii tey ji fu mu toll nii nag ñu ngi si booru rond point Sandaga lépp lu bees rek dina leen ko dëgtal incha allah ci ci suñu chaîne YouTube at ci si d'information bi

yéen a koy gis nii les arrestations se poursuivent euh, ici au niveau du centre-ville ñuy fàttali rek ne que fu mu toll nii moom jafe na lool lool lool nga xam ne nii ñoom ñooy ñaxtu fii nii te bokk ci mbootaayu ñaxtukat yooyu ñu duppee euh, collectif non lànk jafe na lool si ñoom. ñu àgg fu mel nii place de l' indépendance nga xamante ne foofu noonu sax lañ mbëbatoon euh, amal euh, toogaayu ñaxtu ngir ñaxtu euh, yokkute bi nga xamante ni moom nemmeeku nañ ko si njëgu courant bi te itam ñuy fàttali ne que am na lu war a tolloog juróom-ñeent doomu aadama yu bokk si mbootaay le di ñaxtukat yi ñoo lànk yoo xam ni jàpp ne leen ku mel ni Aliou Salé bu Y'en a marre professeur Daouda Gueye bu collectif bu France dégage te muy naataango ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna a xibaar yi tamit ak yeneen i kilifa am na sax ñun ñuy xamal benn mag boo xam te ni jàpp nañ ko fu mu toll nii loolu lañ mën a jàpp mais arrestation ñu ngi continuer ba tey doot na de am na benn dalandi bu ñu si nemmeeku woon sànq waaye mel na nii ñi nga xam te ni ñoom ñooy euh, ñaxtukat yi ñu ngi ñaxtu ba tey te tamit euh, pare nen pour ñu jàppaleen presque tamit boobu ba léegi maa ngi koy euh, wax sànq si suñu vidéo yu njëkk fu mu toll nii moom ñu ngi leen di buntu xatal bu baax a baax am na sax suñuy naataango yu bàyyeekoo fële euh, Dakar ak kii nga xamante ne ñoom fu mu nii seen euh, matériel bi dañ ko yàq ba ba ba direct sax bi doon def da ko mujj woon euh, arrêté bon lool daal moo fi rusoon liggum waaye lépp lu si mënti am dinañ ànd ak Sénégal ñu yëgal leen ko si ay anam lu gën am na tamit beneen yëngu-yëngu bu ñu nemmeeku si boor be ba tey ak presse bi mu mel nii daal tey jii moom presse bi amuñu fu ni fi ñuy lekkee seen i nàkk daal maanaam ñu leen di teree dem ak dikk ba tey seen liggéey ñu leen di teree ñu def ko nu mu waree mi lu jaaxal na ñu bëri waaye mën nañu jàpp ne aussi euh, tension bi moom moo moom moo nu demee. en tout cas journaliste yi moom euh, ñu ngi def seen liggéey ñu ngi nekk si science d'explication ak policiers yi ñoom tamit euh, ñu jàpp ne seen liggéey rek la attroupement la ñu bañ te jàpp leen ne journaliste tamit dañuy indi attroupement maanaam ay booloo ay doomu aadama yoo xam ne mën na fi trouble à l'ordre public public boobu nga xam ne sax bokk na si lay yi nga xam ne moom la préfet bu Ndakaaru génne woon pour euh, bañ a euh, daganal euh, tase bi ñu foon danoon tase ñu fàttali tam beneen bi am na ay civil yu bëree bëri yoo xam ne tey sax mun neen wax jàpp yi ëpp solo ñoom ñoo ko def ay civil leen ay doomu aadama yu sol caaya wala yu sol sax euh, nii nit ñi di solo waaye ay policier lañ ñoom tamit jàpp neen ay ci am yu bëri tey gis yi mooy manifestant yi loolu daal ne mën a jàppandi mbokk yi ñu topp si euh, suñu chaîne YouTube Seneweb euh, ñu ngi leen di dig daje feet ay waxtu néew voyez pas La presse aussi est en d'être bousculée. Aliou Sané vient d'être arrêté. Aliou Sané, Aliou Sané vient d'être arrêté. Et vous voyez en live les premiers lacrymogènes qui commencent à tomber. Aliou Sané vient d'être arrêté. Aliou Sané du mouvement Yanamar vient d'être arrêté. Aliou Sané du mouvement Yanamar. voyez sur ces images Aliou Sané vous voyez c'est toujours pareil tout à l'heure on nous a jeté volontairement aussi euh, des euh, lacrymogènes vous voyez encore on nous met des lacrymogènes comme d'habitude c'est comme ça qu'on nous traite comme d'habitude vous le voyez regardez bien regardez bien

On fait notre job et c'est comme ça que la police nationale du Sénégal nous traite. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Il le dire. le font volontairement.